الإعلام أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليم ينزيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب جواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء شهيدا بتوبات الأفراد من ربه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز قيدا ذا عدمة من لقاء كل آمين بإذني رب بعالمين هدى حاوي الأقوام وهو الذي من أطار أن هو ما تدبر. Sëriñ Dame Belel Diouf. ci mm. moom ñu ngi nuy bokk yi ñuy diglu te diñu seetaan ci tur sëñ Abdoulaye Diouf mi nga xamante ne bii mooy jëwriñu liggéey bi te sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Sohaybou teg ko ci loxoom mu ànd koog mboolem ay rakkam yi nga xam ne ñoom la bokkul ceer nu góor ñi ak jigéen ñi ak njabootu sëñ Aliou Diouf Lambaye gépp liggéey bi nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax dafa mel ni kër gi nga xamante ne bii tey moom la ñuy yeesu loolu li fi nekk nun fi leen defee lépp ah, mboolem ko sëñ Thierno jur fii nga jaare ci Serigne bu ba mu noppi ci yow dellu la Serigne Thierno kon bu ñu fa nekkee seex sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke di sëñ Souhaïbou sëñ laay di sëñ Thierno fee tey ñu fa wat ab liggéey teg ko ci loxol waa kër sëñ Thierno Diouf luñ lu njaboot gi rafetlu la lu neex la lu ñu am mbégte la euh, ndax mën nañoo liggéeyloo feneen mbaa mu mën nañoo liggéeyloo leneen waaye kenn ku ne xam ne ne kër Serigne Souhaïbou bi gi bokk na ci histoire yoonu murit ndax Daaru Rahman la tudd waaye ñi gën a bari ñu gën a bari xam Daaru Naar lañ ko doon lañ lañ ko xamee te dara warlu ko loolu jamono bi nga xamante ne bii Serigne Touba rëdd na ko nekk fi ngir xaw a bëgg sori bindee fi moo tax mu nekk fii bu fi nekkee nag euh, tànnee fi naar yi daa ko fi fekk. Eh, di waxtaan ak moom ci seen soxla ak seen i aajo ba tax ñu ko Daaru Naar muy kër goo xamante ni bii lu bari ci histoire xew na fi ci yoonu murit da ci am yooyu nag sëriñ Sohaybu bu du la yar xamal la nga xam la mu bëggoon eh, nga ñàkk koo gis tax ngay tàbbi ci lolo moom mbirum baatin mbaa mbirum ëllëg wax ci dara daa doon aw melokaanam kon day am loo xamante ni bii liñ xam fii lu yaatu la waaye lañ fi mën a nettali lu néew la ah bee ci jëkk rek mooy kenn ku ne xam ne kërug barkeel la goo xam ne gi kenn ku a xam ne sëñ Mouhamadul Moustapha ak sëñ Mouhamadul Fadil fi lañ dale ci dimbi gi nekkan fii te dimbi eh, nekkatu fi ñu ñu mandargaal ko lee fa nekk te kenn ku ne xam na ne bi sëriñ bi leen sëriñ bi ñu leen bi ñu dal alxuraan foofu sëriñ Touba def leen nañ lii ma leen di sant na ngeen ci def pas-pas ak itte waaye gaaw xam gi ak bañ a fàtte gi maa leen ko ci war lool ah loolu di lu lu di lu ba ci biir kër gi yeneen xew na fi ba ci Ahmed Souleymane fii la ko taalifee nangam nangam yu bëree bëree bari kon bu yàlla dogalee ni tey ji ligg ñu ñu yeesaloo liggéeyub kër gi danoo bàyyi xel ci ne danañ ko liggéey ba noppi ñu sedd ne nun ñu ko liggéeyin mën nañ fee bañ a nekkati waaye dañ ko bëgg liggéey noo xam ne bu neen ba nun ñu ko liggéey nekk xam ne ñi ko liggéeyin liggéey nañ ko liggéey yéene xam ne ne liggéey nañ ko liggéey boo xamante ne biit sëriñ so jëmmi sëñ soñ ba rek jëmmi sëñ soñ bi yaa tax ñu defee ko noonu sëñ Cheikh Amadou Mbacke soñ bi lam ci wax lu lu mën a soññi nit la ndax daa wax ne liggéeyloo ma leen sama kër kër sëriñ soñ bi laan liggéeyloo ndax kër gi dama fee nekk te dinaa fi jóge waaye dama bëgg ngeen def ko noo xam ne bu ëllëgee bu ma fi bu ma fi ñàkkee nekk ku ma fi wutu xam ne sëriñ soñ bu liggéeyal ko kër gi ba ba defatu fi dara waaw loola moo tax tey jii ñu daje fii di liggéey liggéey bi am ci pas-pas ak yéene ndax du miir bi donc ndax miir bi tey boo ko dee xool juróom benn téeméeri mètre la am nañ yéenay nu nu nu miir di mel ak lu mu war a àndal euh, euh, euh, nu def ko la ci loolu am na ñetti appartement ci biir kër gi yum na joxoñ yoo xam ne plan bi jot nañ ci yoo xamante ni am nañ yéene bu miir bu noppee nu dugg ci liggéey booba te fas nañ yéene daan liggéey lépp nan nam na ko sant ba luñ ci war a def te man ko cee def nu def ko ci. relation loo xam ne ni démb la woon diggante Serigne sëñ Thierno Diouf Lambaye ñu delloowaat wattu ca ca ndaala ni comme olof yi di waxe waaye beneen bi mooy message boo xam ne ni wala kaddu yoo xam ne soññee dañ ko wax mbokku taalibe yi nga xam ne taalibe kër sëñ Thierno wala fu mën a nekk xam ne liggéey bi du liggéey la boo xam ne dafa nekk dafa xañ na naam dafa jaare ci loxo yoo xam ne rek ñu am fu mu nekk waaye liggéeyu yoonu murid wala umma islamique bi yëpp ñoo ko bokk waaw moom ni nga xamante ne bii sëriñ soñ bu tey ku dib julit mel na ni jariñ na la ndax waxuma lim jàngal waaye bi mu demee ba xam ne njàngit am na fu mu yem mu wëñu ko di bind bind na yaakaar naa téere yoo xamante ni bii jërul di ko lim fii ñëpp teg nañ seen bët loolu du murit du xaadir du caan ku di jullit ku dut ab sax mën nga caa jariñu ndax boo doon xool affaire yi métti ni sa nekk ak yeneen yoo xamante ne bii mut ci ak njullit kon tey bu ñu bañ a ne kër sëriñ Sonia bu la ñuy liggéey ñetti appartement yi nga xam ne soxna yi boppam yi ñoo fi nekkante ne fa suñu fa yéenee génn ndax feneen suñ bay woon loolu képp ku ko dégg ñu ngi la ciy tàllal loxo fas lu ci waay am te man ko na ko ci def euh, ndax du tële koo tax sax ñu di ko wax waaye bëgg a jar ñu bëgg ñëpp jariñoo tax ñu di ko wax rawati nag koo xamante ni kii tey moom da ngaa bokk ci kër sëñ Aliou Diouf Lambaye waaye ilaa nga ci kër sëñ Thior Diouf Lambaye loola moom kenn ku ci nekk doo ci doxee noo man dañoo bëgg kenn ku ci ne na man ak na nga mënewut nga doxe ko ba liggéey bi mel noo xamante ne bii ki ko teg son loxo fooguutal ne liggéey bi nii lay demee ñu ngi ñu ngi ci soññi ñëpp ku dikk fekkoon ci ko dem bàyyi nu ci duñ ci denc duñ ko dencal dara lu nu waay joxe daan ko ci def ba ànd ak dogalab seen borom waaw. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërë ngeen jëf. bisimilah sëriñ Amidou Diouf bu sëñ Thierno Diouf Lambaye. salaamaaleykum wa rahmatullah liggéey bi nag moom liggéey la boo xamante ni sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké son bi da koo yëkkati jagleel ko yoonu murit rawatina nag waa kër sëriñ Thierno Diouf Lambaye kër sëriñ Thierno Diouf Lambaye nag bu ko tuddee dañuy jiital sëriñ Abdoulaye Diouf mu sëriñ Thierno Diouf Lambaye di xalifaam jël liggéey bi jox ko jëw rakkam muy jëwri dem di sëriñ Dame Diouf Belel ñun ñii nag ñu nekk euh, ci seen ginnaaw di jàpp ci liggéey bi di ci taxaw def ca lañ ca war a def ndax parce que kër sëñ Thierno Diouf Lambaye bu ko waa kër sëñ son bu joxe liggéey wàcc na ndax sëriñ Thierno Diouf Lambaye nee woon na uh, doom ju ma jur muy góor sëriñ Chouaïb bu Mbàkke laa koy jox sëriñ yi bu nag kum jël kum kum kum ne ku ku mën naa jël ku ko neex joxe waaye man lu ma jur luy góor sëriñ yi bu laa koy jox loolu nag moo moo ñu fi bàyyi nga xam ne kër gépp ñu ngi tënku ci kër sëriñ yi bu Mbàkke génnuñu ko loolu rek sant yàlla la ci ñun ba tax na liggéey bi bi ko sëriñ Cheikh Mbàkke yëkkatee jagleel ko waa kër Serigne Thierno Diouf Lambaye dañ koo def mbégte def ko loo xamante ni maanaam dangeen di bëgg nañ koo liggéey daal liggéey boo xamante ni dana mucc ayib te ku ko gisit sa xol dana sedd te képp koo xamante nii maanaam def nga ci saw ñaq euh, ñi ngi ñaan ñaq woowu nga ci def yàlla na ci saa borom bi defal lu kawe sa njot ak sa bëgg. liggéey bi moom buñ ne kër Serigne bi Mbacké dafa am liggéey bu ca bu ca am ñu ngi koy def. kooku moom bépp jullit buy wax ashadu an la ilaha illallah euh, bëgg nga caa def saw ñaq boo ci mënta def saw ñaq nga def ci sa wërsëg leneen li nga xamante si nii nag moo ci topp dafa am ñoo xamante si nii ay kilifa lañ ku ci mel ne sëriñ Fallou Mbacke di sëriñ di doomi sëriñ Mahamadan Mare Madam euh, di kilifa ñu gën koo xam ci sëriñ Fallou Mbacke transitaire kooku moom da lépp loo xamante si nii mi ngi jëm ci kër sëriñ Touba. moom dara am du ko fekkee daal moo tax moom ñu ngi ko ci woo avant tout di ci woo bépp euh, jullit di ci woo sëriñ Muniru Mbàkke mu sëriñ Muudu Faati Xari Mbàkke moom ma Masamba Mbàkke di ci woo euh, soxna maam Faati Siidi Mbàkke di ko euh, di ko ci woo naan ko sa kër maam la ñuy liggéey ñu ngi lay woo ci liggéey bi jëwrinam mooy Moustapha Mbacke Lo ñu gën koo xam ci Junior Lo kon ñu ngi leen di woo ci bis bi bu baax a baax a baax di ci woo Abdou Lahad Ndiir di taalibe maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan di di nit ku baax bokk ci kër Serigne Thierno Diouf Lambaye di ci woo soxnaam soxna Faat Jaaj soxna Faat Jaañ Naasi di ci woo sëriñ Atex Mbacke di ci woo xaritam nag Nasiru Sàmb ñu gën koo xam ci PDS PDC Nasirou Samb ñu ngi ko ci woo di ko jaarale di ko jaarale ci sëriñ Atex Mbacke. dib taalibe di murid saadex ñu koy wax sëñ xaadim seen ca ndakaaru ñu ngi koy woo ci liggéey bi sa kër maam nag euh, lañ jox liggéey bi maanaam dañ la dañ la mënut ñàkk ba ñu tudd waaye euh, ab soññee la daal bu ñu nee waa kër sëñ Thierno Diouf Lambaye yaa ngi ci biir xaadim kon ñu ngi lay xaar ci bis bi. ñi ngi ñi ngi woo bépp daayira nag boo xamante ni dafa aju ci kër sëriñ Thierno Diouf Lambaye rawatina kër sëriñ Aliou Diouf Lambaye di woo bépp daayira bu aju ci kër sëriñ bu Mbacké ak kër sëriñ Abdou Lahad Mbacké ñi ngi la ciy woo ci bis bi di ci woo ñëpp di ci di ci woo nag euh, di maa ngi ciy ànd ak sama sama mag sama xalifa sëriñ Mbaye Diouf Lambaye moom sëñ Thierno Diouf Lambaye di ci ànd ak sama rak Omar Diouf mu sëñ Thierno Diouf Lambaye di ci ànd ak sëriñ Djili Diouf di ci woo bépp jullit daal boo xamante ni ñu ngi wax yaa ngi wax ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ñu ngi lay woo ci bis bi bis bi nag ñun waa Kër Sëñ Thierno moom liñ am ak liñ man lépp dañu ko ci def ku lu lu lu ñu ci fekk ñu boole ci ñu boole ko ci ba keroog muy àgg miir bi dafa rëy te am na beneen bâtiment bu nekk ci biir boo xamante ni sëñ bi da ko teg ci sunuy loxo ñu war koo liggéey te incha allah rabbi bëgg nañ lépp def ko ni ni ni ko sëriñ bi bëggee boo ku fi gis ku fi jaar daal boo xoolee miir bi da nga ne alhamdulilahi rabbil alamina jërëjëf waaw jërëjëf